donc euh, yaa ngi koy wax sa biir yi wax tu étais banquier donc euh, mu nekkoon liggéey boo xamante ne xëy na am nga woon post bu baax di fayee ko tous les mois nga jékki saay euh, am déclic en cette année là ndax théâtre yi ngeen jotoon a génne daal di balancer lépp li nga xamante ne moo jëm si wàllum banque bi dugg si théâtre bi. Mm. est-ce que bi ngay def loolu noonu consciemment xamoon nga ne ci lii ngay dem nii dina lu jural dara lu ëpp lii. non non parce que boobu ñun defuñ ko woon sax pour xaalis on le donc wax naa la ko léegi sama biir wax dafa fiir te saa neex alaaji c'est mes amis tu vois sama ay doomu ndey lañu donc dama doon wax naan ok man bàyyil ma concentré consacré wu fii concentré wu ci théâtre bi mën a jàppale sama gars yi nga xam ni ñoom moom lañu moom la ñuy def euh, maa ngi doon fayeeku et waaye lii dama ko sentiroon xam nga nit tey boo xamoon fooy mujj euh, fooy mujj danga nga fay njëkk rek dem toog dafa xaar doo xam instant yu da ngay essayer fu ne rek tenter chance fu ne xool lu ne xam nga mais daal lii daal dama ko sentiroon sama biir xool ma ne bon man damay bàyyi fii ma nekk nii après ma dem defi théâtre d'autant plus que fi ma nekkoon ki ma fa tegoon ki ma doon liggéeyal ki nga xam ne moo gere woon banque bi moo géré woon mutuelle bi moo géré woon lépp moom moo créé Soleil Levant sama yaay la muy euh, mère Ndeye Fall moo créé woon Soleil Levant bon après ci biir répétition yi et tout mu gis sama niveau jàng gis sama dal gis sama lu bari ci man mu dénk ma mutuelle bi en même temps mais donc moo tax bi ma paree pour ne ko nag vraiment dama bëgg a concentré concentré ci théâtre bi. Mm-hmm. elle a compris euh, d'autant plus que moom moo créé woon théâtre bi bon elle a compris après ñu formé ñeneen booy ñu dem ci banque bi man ma continuer def théâtre bi mais rëccuwuma ko woon parce que. dama ko bëggoon sama xol après en fait bëggoon la c'est ça waay euh, yaa ngi wax tamit sa biir wax que jot nga jàng li nga xamante ni moom moo di euh, le fait d'être un metteur en scène aujourd'hui en tant que euh, acteur wala metteur en scène ñaar yooyu noonu ban moo la ci doon gën actuellement laa nii fi may waxee nii là où je parle là là là dama damay préfère dama bëgg nekk léegi metteur en scène seulement moom ak moo ma gënal mhm. su ma ko mënoon def moo may gënal parce que un metteur en scène en fait wala un wala un scénariste waruloo jouer sax parce que parfois damay jouer da yàq sax tuuti sama jeu man ndax damay jéem a rectifier ki may jouer la tu vois mm-hmm. parfois ki may jouer fàtte texam sama biir texte man ma andiwaat ko pour moom mu ñëwaat mm-hmm. alors ko du du loolu su fekkoon dama nekk acteur acteur nii rek cent pour cent donc rôle bi dama koy assurer à mille pour cent mais boo nekkee acteur en même temps metteur en scène en même temps tu réalises en même temps tu es dans le scénario donc rôle bi au lieu nga nekk ci 100 pour cent di nga def ba 70 80 pour cent mais tu peux faire plus boo nekkee acteur seulement donc su ma sañoon tey xam nga soleil levant en fait ñun ñun ñun troupe la ñu yore groupe la ñu yore donc groupe boo ko yoree dafa mel ni équipe de football kii nekk de euh, bi latéral droite latéral ak central yi milieu et tout ñun loolu la ñu am tey rôle bi bu génnee tag dañ naan kii la rôle bi bu génnee tag dañ naan kii la rôle bi bu génnee tag dañ naan donc biir soleil levant tey rôle yi may joué bu amoon ku ko mën ku xam ne casting am génn na ko biir soleil levant man dootuma ko def damay nekk ci ginnaaw di def mise en scène où je fais la réalisation ma bañ a joué mais amaguma ko maa ngi koy seet nag mais su ma ko amee je serai derrière les caméras ci laay gën a liggéey. ci ngay gën a donc euh, te jii bëgg naa ñëwaat ci li nga xamante ni toujours moom mooy di euh, liggéeyu metteur en scène ndax euh, gis naa fenn fooy waxee ñu lay laaj par exemple lu tax ngay faral di jël rôle ki nga xamante ni moom mooy riche mooy beau gosse bi. Hmm. tout temps mooy ki yor xaalis. <coughs> donc tu as expliqué ni say camarades yi ngay àndal. tu les connaissais depuis très longtemps. Hmm. donc ku nekk xam nga rôle exactement bi nga ko war a jox. Hmm. mais est-ce que loolu noonu du du stagner sa carrière ba nit ñi jàpp ne ni ko loolu rek nga mën a jouer. du tout tu wax naa la ko léegi ñun troupe la ñu yore boo soxlaa paa bu nga xam ne day def caaya yey guro takk ay ndombo jël mbaxane bi yóbbu ci ginnaaw saa neex la booy xool xaritam boo xam ne moo koy def loo musiba wala moo koy def loolu bon wala moo koy nangam sàngam wala moo koy influencé alaaji la booy xool ko nga xam ne xëy na play booy la moo war a doxaan wala moo war a gérer benn gel wala moo war a nangam ñu ne man la booy seet koo xam ne ku yambar la ku def ku noppi ku nang nga ne ñu ne Seydina la booy xool koo xam ne kaw-kaw la ñu ne Moodu Pousse-Pousse boo xool ku ne mandikat la ñu ne Mbay Doose mais man chance bi ma am mooy mën naa yooyu yëpp ñoom lu ñuy def parce que may metteur en scène bi saa neex balaa jouer maa njëkk a yëg ci scène bi def ne ko léegi defal lii tu comprends su ko defee mu ñëw def ko dolli ci nag ay feemam plus Mbaye Dozé balaa joué maay dégg yéeg ci kaw seen bi mandi ba pare. ne ko waxeel nii defeel nii taxawal nii takk xooleel nii defal après mu ñëw def ko. parfois sax dañ daañu ñu répété dëgg dama leen doon wax naan rôle bii boo ko deful carrément man ma simmee ko ma def ko parce que xam nga ne mën naa ko. ci comprends ce que je donc change boobu laa am. change boobu laa am change bi mooy mën naa mën naa def mën naa def rôle yëpp. loolu yëpp mën naa ko def mais comme ko équipe la ñu yore ku nekk da nga fa nga mënee. donc dañ lay bàyyi rek ku nekk fa nga mel ni n'empêche que mën naa ko def dafa mel ni rek tey tey boo yóbbu woon tey Messi mu góolu Paris mm-hmm. Saint-Germain nga yóbbu ko mu góolu mm-hmm. <laughs> dañ naan Messi lan lay def ci camp ci camp yi tu comprends mm-hmm. donc noonu la mel mais <laughs> bientôt incha allah dañ ma gis ci yeneen feeb